waaw lu jiitu ci samay kàddu mooy jëmay jaajëfe félicité Fama Diagne ñi nga xamante ni tey euh, moom moo gagné ci mise bi nga xamante ni 300 francs la tegoon yàlla dimbali ko suturaal ko ba mu gañee lu toll ni cent million 60 mille francs CFA euh, famille Lonase yëpp di ko ci félicité di ko jaajëfee di ko encouragé. di remercier également euh, confiance bi ñu am ci ñun euh, ñuy remercier également produit bi ñuy naan le 456 ou bien euh, seen loto jackpot bi nga xamante ne ci foofu la Fama Diagne joué gagné. waaw fan yi ñu romb rek ci foire bi ñu ngi doon lancé ak Lonase Bet jeu concours CAN bi pour laata. kan bi di démarrer ay ndaw wala ay parieur ñi nga xamante ni joué nañu bu ñu gañee ñu dimbali leen ñu ñoom fekk ci équipe nationale bi ci Côte d'Ivoire jàppale leen gunge leen waaye boo leen seetloo tamit loolu commencé nañ ko ba am na ay nit yiñ ci tàbb te li na a continuer la ba eh, ba bi jeex donc euh, dañ leen di encourager di tat di di di di xool tamit nan la ñu mën a organiser toujours pour que l'ONAS nekk euh, di accompagner parieurs yi ci bépp gain bi ñu mën a am ci produit yu ñu yor yëpp année eh, fan yi ñu romb tamit amoon nañu beneen produit bu ñu lancé bu ñuy naan Quinté Plus ak euh, yeneen produit yi nekk biir Lonase euh, di encourager parieurs yi waaye it di xeex euh, jeu yi waaye di def lu ñuy naan jeu responsable parce que Lonase loolu la woote aussi bañ a indi addiction bu bëri ci suñuy ndaw waaye naan leen tamit réalité la nit ñi di jouer di gagner loolu ci biir kër gi presque chaque semaine wala chaque jour laay wax li may signé ci ay gain parfois dinaa leen laaj ndax ma it du ma dem taxawee beneen boor bi commencer jouer. ma gagné chèque 100 millions 68 mille voilà tout d'abord je remercie la LONASE de m'avoir permis la chance de gagner ça waaw donc aussi di ñaax yeneen tamit pour ñu jouer ñu tenter seen chance pour gagner. voilà parce que man de temps en temps damay gagner parfois une fois par semaine et tout benn ticket laay gagner laay jouer. la 300 ok 300. Mhm. la fois passée dama demoon Tëngéej Rufisque ma seet sama tonton après ma romb benn caisse ma ne pourquoi par xaaral rek maa ngi woon 1000 francs ma ne xaaral ma dugg ma jouer bi ma jouer après si laa gagné. 1 million yi nag bëgg naa def ay projet macha allah bëgg naa def ay projet d'autant plus que petit commerçante la donc dinaa gën a mun a yokk sama liggéey ñeneen ñi aussi mën see gis seen bopp investir si incha allah si c' est vrai c' vrai dañu naan c' est pas vrai mais c' vrai peut être ku nekk ak sa chance de temps en temps nga jouer nga bañ a découragé parfois sax fi nga yaakaar ni doo gagné fa ngay gagné.